ab misaal ci li nu jàng su ma daggee ab car ci garab ndax car ba dina dund déedéet ndaxte car bi ak garab gi teqalikoo nañu car bi ak xob yi dinañu dee bi aadama ak awa bàkkaare la seen kóllëre ak yàlla jeex aadama ak awa jubootuñu woon ak yàlla yàlla génne na leen toolu àjjana yaramu aadama ak awa tàmbali di dee itam mel ni car bi ma dagee ci garab gi ndax car bi mën na taxalaat boppam ci garab gi ngir bañ a dee déedéet ndax adama ak awa mën nañu dugaat toolu àjjana ngir musal seen bopp déedéet yàlla dafa sel te du bàyyi bakkarkat dëkk ak moom moo tax yàlla teg ay malaaka ak it jenn jaasi juy tàkk ci buntu àjjana ndax nun mën nañu mucc ci àtte yàlla ci sunuy pexey bopp déedéet